سير مع الأبرار هنا سير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سي البهاء براعة المختار ليس تقفى إلى على من بنكال يخفى bokk yi noo ngi leen di siyaare kenn ku nekk ci turam ak santam di leen balu xaq tey balu xaq ñépp tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal suñu bakkaar yi jëkk ak yi mujj yi nga xam ne bu ëllëgee kenn du jàll ca barab boobee ñuy jaar di fa yóbbaale sa àqi moroom te delloo ko ko yàlla na nu yàlla jéggal wala ñu àgg ca barab boobee amin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi noo ngi dellu ci taarixu yoonu géej xam ngeen ne étape yu bari romb nañ ko waaye ba tey ñi ngi des Gabon ci diir bi nga xam ne Sëriñ tubaab ma nga fa ak nattu ya nga xam ne moom la fa doon jànkoonteel te nattu yépp bi nu ko limee mi ngi tollu ci ni mu ko waxee suuratu baqara aaya yi nga xam ne yépp mi ngi ci biir toll ci mi ataani wa xamsa wa samaanin muy deux cent quatre-vingt-cinq aaya muy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci aaya yi te saar wa ca muy saar wi ci gën a rëy aaya ba ca gën a rëy nekk ca lu toll ci ay natt lañu tegoon Serigne Touba ca fa nga xam ne mooy boobu yi ñu ko génnee Mbàkke Bari yi ba ni mu demee Gabon ci juróom-ñaari at yi ba ñibbisiwaat natt yooyu tegu na ci moom xam ngeen ne am na naaru gànnaar bu mu doon nettali muy men benn bés audience bu ñu ko doon woo ngir di càmbar ay mbiram fekk ba mu jógee ca fam ko dalaloon ba mu ñëwee dañoo wut aw nag yeew ko ca yoon wa muy jaar ngir bu fa jaaree nag wi man koo lottal waaye ba sëriñ Touba demee ca ojaas ba ba wàññiku la daal di ñëw jaar ca mbedd ma di dox ba jub nag wi waaye nag wi ba mu ko jubee rek le riir da wuti ko waaye nee na amu ci lu dul gis lu ne cas nag wi wuteeg moom asamaan ne ko ba fii may waxe yow nii ma ngay dem te àggagul fa mu jëm loola bokkoon ci li gënoon a tiital tubaab yi nag ndax fu nu ko jaarale fu nekk rek day nekk miracle ci ñoom xam ngeen ne ci natt yooyu am na ko jaayante woon ne buñ ma ko joxee danaa jël bakkanam bu ngeen ma joxee lu ma ko jaral jox ma daraja ju ma jaral danaa jël bakkanam ñu daal di jël alal ju toll ne la wax jox ko jox ko kilifteef gu mat sëkk muy daraja jam soxla woon waaye jëmm joojee wax nañ ne ak kaaw diir la wutoon kaaw bu ngeen ko déggee mooy cin lu mag koo xam ne wax nañ ne donk ak a képp juróomi nit yu am lef mooy juróomi nit yu am doole ñoo ko fa mën a jëkkati moom kubéer ga képp nee na mu xëy def ci ndox ñu def matt mi di ko xamb nee nañu ubbi donkaleer ak a jël sëriñ ba dugal ci biir kub kindi di ko xambu six heures de matin ba midi jot di xambu ba yàlla dogal waxtu julli di waaj a jot Sëriñ Tuubaa daal di wax suñ boroom ne ko ah waxtu wi day jot na te war naa ko joxe te man duma julli ci lu dul waxtu te it ñu ngi may togg te bëgguma leen a ñaan ndax waxoon naa leen ne leen ba bëggeen may delloo si waxoon naa la ne la du bu ñu xam lu ma bëgg bu ñu xam lu ma bañ léegi nag maa ngi lay laaj nan lay def suñ borom ne ko danaa fexe ba def ci xel yi ña la dugal ci biir ñu xool la ba xam ñor nga wala wala déet bii mi di jotee ñu doon xamb bu mujj ñu toog seen ban ki jiite woon loolu daal ne ah six heures de lañ ko ci dugaloon te ñoo ngi ci midi fi ne moom yaakaar naa ne moom war naa ñor nañ ko xool ba xam sëriñ bi nee bi ñu ñëwee ndeke ñu ko ubbi nee na ndaxam kul béet jaag ñokket jaa ànd te kenn dayu ci kenn nayu ci maanaam wenglo wala mel ne lu daanu nee na kenn def ko ca ndaxam kul béet jaag jaa ànd loola bokk na ca la nga xam ne def nañ ko ko ca Gabon wax nañ ne itam xalaat nañ benn bis indi ko ci gaar bi dugal ko ci ñaari diggante ñaari wagoy saxaar teg ko ci diggante bi wutal ko fa fu mu toog ñu daal di wut bomb moo xam ne dañ koy dànd waaye machine koy commandé ci sa loxo nga koy téye di ko manipuler ba mu dem fa nga bëgg mu àgg fa mu explosé waaye bi ñu ko réglé su doxee ba toll ci sëñ bi lu toll ci ñaari mètre su ñu bësee rek machine bi fay def nañ ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñu defe ne li ñu yor mu baaxul daal di déplacer sëñ bi fa mu toogoon su machine bi agsee rek day exposé foofu ñu xam ne nag kon sëriñ bi li mu yor du ak nen loola it def nañ ko ca fa nga xam ne mooy Gabon bu yàlla dogalee nag pexe yow yépp ñu jéemal ko ko diggante Libreville ak Lambaréné gannaaw bi nag lañ ne kon nañ ko yóbbu Mayomba waa Mayomba ne kat bu mu fi ñëw ndax dégg nañ ne sëriñ bi fi mu jaar ak ñoom nga xam ne dem na ba lakkal leen wit ba muy ñëw sax dañ ne woon yàlla kaboon jaa ngi ñëw moom jëppewuñ ko woon ne nit la yàlla dogal ban ko indee it foofa moom lu bon bon wutal nañ ko fa barab bu mu ne ab pantre waaye ca biir labbe ya nag fa lañ ko defal pentre boobu comme ça suñ ko soxlaa rek mu mën a ñu wuy si leen waaye foofa it xam ngeen ne am na xew-xew yu fa xew ndax jamono ji nga xam ne génn na Sénégal te kenn xamul ci moom diirub juróomi at yooyu dara jamono joojee génn na di bind ba dégg ñaar ñuy wax mel ne luy xuloo mu dégg leen ñuy wax ay wolof bi nga xamee ne yàlla dogal na mu woo kenn ka kooka mi ngi tudd Ablaye Ndiir mu ñëw laaj ko fu mu dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko ndax xam nga sëriñ bu ñuy wax wala sama taalibe bu ñuy wax Cheikh Ibrahima Fall mu ne ko ah kooku kay ñëpp xam nañ ko du ko damaa bëgg booy dem Sénégal nga kaay ma yóbbante la ci leetar bii mooy leetar bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall jot na ko te jógee ca Sëriñ Tuubaa jaar ci Ablaye Ndir moom mu ñëw fekk si ko fi mu ne yàlla dogal ci jamono jooju sëriñ Touba tumuranke war na fa lool gisul woon taalibe bu koy jox addiya gisul woon ku koy sarax gisul woon ku koy dimbali ci dara moom képp a fa nekk ak tabaaraka wa taxalaa moo tax mu ne wa sextu bi rabbil arsi xil juudi wal afwi la wax waaye ma al Mustafa wallahu lii muxlidun safi muy dafa dëgërlu woon rek wakkirlu ci yàlla dem liggéey yi liggéey boobu ànd koog yonent bi sallallahu taala alayhi wa xam ngeen ne foofa it la taalife muqaddamatul amda bi mu koy bind ba def tarjumaan ji ba wa innaka la ala xulluqin asimin la jël xalima gi rek daat ne wa sixtu bi rabbil xarsi siixil juudi wal afwi mahal Moustapha wallahu li muxlidun saf wi yonent bi daat ne ñokket dikk fekk ko fi mu nekk ne ko dama daan xaar loo bind nga indil ma ko waaye tey li nga bind man maa koy jëlsil sama bopp te loolu ba mu ñëwee ba jëlsi ko nag la na ko bis naka tey nag géej ga ma naanoon ci laylal israa wal mixraaj bis naka tey jox naa la yow xaadimu rasul nga di ca naan wowul ko wax na ko ku uusu ka tasxiin yi biha saa busaaratin wali xutta faydan axjalal baxra wal fulka waaye jamono jooju am na ku ñuy wax Andrea Diliga moom lu bari ci xissa yi ñu nettali ñu jële ko ci Cheikh Moustapha mu Cheikh Abdourahman Lo nee na moom moomee ma ko ko nettali gannaaw ba mu defee la mu war a def ci ay coono ba àgg ca barab bu jafee àgg muy Maayomb nee na moom wax na ko ne sëriñ bi ñu ngi ko fi indi la 7 mars 1900 la 7 mars 1900 lañ fa indi sëriñ Tuubaa ci Maayomba wax na ne am na benn monseigneur boo xam ne moo njëkk a dugal diine chrétien ci Afrique de l'Ouest mu nekkoon benn évêque mu nga nekkoon Congo Pointe-Noire jamono joojee nee na moom it ñëwoon na fa yàlla dogal nag ci jamono jooju Andrea Delegar nee benn bis Serigne Touba dañ ko woo ci tribunal bi war koo àtte gouverneur général joxe ordre na ñépp ñoo seetaan mu daal ne man mii ci ñi bokkoon ci ñi doon teewe woon audience booba ca laa bokk nee na ba daal ban ñëwee ba toog ndeke la sëñ bi ne tël daa di agsi nuyuwul kenn daa di sànni der ba daa di julli ñaari rakkaxa ba mu noppee ne wax leen lan ngeen may doyee nee nañu daal leen di génnee ñoom ñëpp audience ba nee na ma nga tàmbali trois heures fa lañ nekk ba quatre bañ noppee sëriñ bi daal di delluwaat fa nga xam ne mooy ca pantre bañ ko dalaloon nee na ca jamono jooja nag ki nga xam ne moo siñeer boobu moo ñëwoon nga xam ne moo doon laaj sëñ bi moom la gouverneur général joxoon ndigal muy laaj sëñ bi ba yàlla dogalee ñu def seen audience ba ba mu jeex ba libéré waat ko mu dellu fa mu nekkoon monseigneur ba dafa delluwaat Congo waaye ba mu demee dafa def benn note walla rapport yónnee ko gouverneur général bu Mayomba wax ko ne ko kii daal lenn gisuma ko ci lu ngeen ko mën a def ba jël bakkanam lu dul ngeen defloo ko lu naqari yàlla loolu képp ngeen ko mën a def ba bakkanam jóge fi ndax xam nga làbbe yooyu dañu nekkoon ñu yàlla may ci wàllu xam-xam moo tax tubaab yi dañu leen daan jël di leen laaj di leen laaj lan ngeen gisee liñ koy def fan la ñuy mujj ak moom waaye mu xamal ko ne ko bu ngeen ko deful loowul lu naqari yàlla mënu leen a jël bakkanam loola tax ñu daal di wut seen soxna daal di koy yabal andi ko ci néeg bi mu nekk ne ko fexeel ba laal ko rek ak sa loxo ndax moom laal gi rek dafa araam ci moom ndax wàllu yi kenn ku nekk na sa bàkkaar di toll bi mu ko indee ba dugal ko ci néeg bi dem campé fa la ñoom gendarmerie yi daal toog ba mu yàgg ñu ne nan dem seeti nag ba xam lan moo xew ba ñu ubbee fa nga xam ne mooy néeg ba ñu fekk sëriñ bi toog di taalif këpp ab këll ci kanamam ba mu këppee këll ba ca kanamam nag ñu dikk ne ko ana jigéen ji ñu dugaloon fii sëñ bi ne leen fii daal man képp maa fi ne bañ ko sonalee nag ba wax ko liñ naroon lépp ci la daal di ubbi këll ba am mbott daal di cay tëb waaye xalima gi mu doon bind daal la joxañ mbatt mi leen fii daal maag sama moromum jàmm yi képp ñoo fi bokk ne mu daal di koy wax lañ bëggoon a def mu jël xalima gi teg ci mbatt mi soxna sa jóg fudd ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah soxna sa moom daal di far nekk ab jullit faf ñu daal di génn ne ah yaxee day jeex na ndax nun day luñ mën lépp def nañ ko te léegi xam ma nag léegi fu nuy jëmateeg moom ndax sonal na nu wit juróom ñaari at a ngi ñuy dem ci jëmmam ji bëgg ko boom mënuñu ko boom ñu di ko sonal te gis ne fuñ ko yóbbu ñooñu dañuy far lor wala ñee far daal di jéblu léegi nag daal nañ def conseil privé biñ defee conseil privé nag ñu xalaat ba wax ne kon léegi nañ ko yóbbu Madagascar biñ xalaatee loolu ba xalaat bay bëgg a ànd ca loola ñu daal di am ñu leen wax ne leen ci conseil privé bi waaw comme yóbbu ngeen ko jëlee ko senegal lu ne daj ngeen ko jéem jéemal leen a jël ba kanam te ngeen ko delloowaat senegal ñu daal ne daal Madagascar lañ ko yóbbu. mujj ñu daal di xalaat beneen île boo xam ne boo xam ne sii daanaka amul aw tur foofa ñu am nañu koy wax wiir wiir waaye wax nañ ne foofa ay rabi àll rek ñoo fa dëkk yoo xam ne ñoom ci seen wàllug bopp dañoo soxor bay lekkante ci seen biir am ko jaayante ne buñ ma ko joxee de man wala ñu fay ma alal ju ma ko jaral danaa ko yóbbu foofu man te danaa ko sànk ñu daal di koy fay daal di koy jox sëñ bi André Diligan nee na bañ jubóog jëmmu jooja six heures de matin lañ jël sëñ bi dugal ko ca gaal ga pour waa jooju war leen a jël nag yóbbu ko fi nga xam ne mooy il booba waaye jamono jooja Sàmba bi am na tubaab yi problème ba ñu jëlee ko senegal indi ko fi nga xam ne mooy Mayomba waaye biñ ko fa indee it dañ ne woon dañ koy sànk ndax bu ñu ko bàyyee dana nett li nu sëñ bi def te kon dutuñu baaxle fenn kon nañ ko yóbbu ànd boole ko sëñ bi mu dem ca île boobu bu demee ñàkkaale bakkanam lépp doxe fa tàbbi géej ba nu juboo ca loola ñu daal ne sàmbakaay sëñ bi dañ koy yóbbu ca île ba te fokk nga ànd ak moom sàmba nag comme nit kese la mu daal di tiit waaye ñu départ six heures de matin bañ àggee ñi nga àgg deux heures de matin bañ àggee nag ñu daal di jël sëñ bi ak bagaas yi ba max leen ñu ñoom ñépp ñu wàcc bi ñu wàccee waaja wëlbati bato ba war a dellusiwaat maayom ba jamono joojee nag rab yàlla yaa nga armé nga xam ne dañuy dem ba lekkante tàkkandeer sax dañ koy lekk mu daal di wàññi ko jàpp ne nag ne rab yàlla yi dañ ko lekk waaye ba ñu toogee ba quatre heures ci ngoon la di Diliga nee na ma dem ba fekk fi ñu tegoon sëñ bi sëñ bi toogaat di bind mu daal ne man mii dëkk ci ñi demoon ci góor gouverneur général di ko wax ne ko sëriñ ba dellu si na man ca laa bokk loolu la ko wax mu ne ko ana ki ko indi woon ki ko yóbbu woon mu ne ko ah ñëwagul mu ne ko boo demee wool ma ko wala su ñëwagul it jël leen kayitu convocation yi tegal ko ci këram ne ko su ñëwee suba bu ma xëysee ne teel a ñëw wuy si ma fekk moom it mi ngi dawal bata bi rek yàkkamte ak si ba nettali te yi xew na gannaaw yàlla mi dara tawul ñu ne nag léegi pour ñu xam ci lu leer nañ laaj sàmbalaw bi mii mu àndaloon ñu daal di woo sàmba sàmba ne nun kat six de matin lañ fi déparé woon ña nga àgg deux heures de matin bañ àggee nag ba boole ñoo bagage yi ba ban wàccee arab yàlla yi ña nga wut si ñu sëñ bi tàllal der ba rekk di julli nag jële jëme bu kenn xamul ma ne wopp ci wetam toog ci peggu der bi sëñ bi di julli arab yàlla yaa ngi jàkkaarloog noonu ma tiit lool muy julli di julli di julli ba tisbaar jot mu julli ko ba julli lu ko sopp daal di sëlmal ne ma sàmba mbaa xam nga ni fii monsieur su fee indi mucc mu ne ko ah Mbàkke man de yow rek laa yaakaar mu ne ma bul ma yaakaar kat yaakaaral yàlla ndax yàlla mooy kii musle waaye mbaa xam nga ne nun danañ mucc sàmba nee man ma ne alhamdulilahi rabil alamin sëñ bi daal ne tekk bu mujj xelam dem ci fu sori mu ree sàmba tiitaay li ne ko ah sëñ bi fii du borobu ree de sëñ bi ne ko ah ndax xam nga li may ree mu ne ko déedéet ne ko li ma ree jàppe de mooy suufus kajoor walla suufus jolof danga waxoon ne xëjoowu fa ak yow bali sabab bi ñu indi ma fii ci la bokk tam gën a yaatu sama der bi fuuf tey nag nga ñëw ne bokk ak man sama der bi te der bi gën a xat kaa man de mbàkke booba damaa defoon rek daf dong de laa defoon waaye yow de rek laa yaakaar de gannaaw ba yàlla wéyee de yow képp laa yaakaar sëñ ba daa di jóg daa di jël gaal yi gaal yi wet gu nekk bii mu roof ci loxo ndeyjoor bi bii mu roof ko ci loxo càmmoñ bi ne ko lemal der bi mu lem der bi mu ne ko yéegal ci sama kaw te bul geestu nag bul xippi yàlla dogal bi ñu defee noonu sàmba di nakk-nakkal sëñ bi ne ko boo yéegul damay dem sàmba yéeg mu ne ko nag bul xoole loo mën di dégg bul xoole waaye sàmba dem ba dégg am riir mu xumb mu bëgg ko dañ kumpa ne xippeet benn bët bi benn bët ba yuriku mu ne benn bi nag moom duma ko ubbi di ñàkk ñaari bët nga xam ne bi muy faatu ci patt la deewaale lii la nettali ñi nga xam ne ñooy ñi ko doon laaj ñu ne waaw kon nag léegi lu ci pexe ah xanaa yóbbu ko rek Madagascar ñu ne waaw kon nañ ko yóbbu Madagascar waaye bi ñu xalaatee nag conseil privé delloo xalaataat ne waaw juróom-ñaari at koo ko jàpp di xëy ci moom ak a te mënoo jël ba kanam te senegal ga ngeen ko jële woon ba déclaré ne faatu na ba yóbbu woon fa yére ñoom xam nañ ne faatuwul ndax rakkam ji boroom gaawaan barki démb la fi jóge kon senegal xam nañ ne déewul te ngeen ko yóbbu senegal ñu ne ko ah Sénégal moom duutu fa dellu ndax xas nañ leen ba am waaye ay yére ne leen faatu na te xam nañ ne faatewul suñ ko yóbboo gàcce googu duutu wér ci àddina ba àddina di tukki waaye ndekate booba dañ ne si wa tàggoog sëñ bi ku leen ko yombal dong lañ doon wut mu ji ñoom ñëpp ñu maase d'accord ci na waaw kon nañ ko yóbbu Sénégal ñu daal di ñëw fekk ko mu muy julli ñaari rakka julli yor bi mu sëlmalee ñu ne ko defaral say bagage dañu la yóbbuwaat Sénégal comme ça nag liberté provisoire lañ la defal waaye soo defaatee njaaxum nag dañ lay indi fii waaye fekk na sëñ bi mosul te def njaaxum ñoom nee nañ siiw nañ tàggoog sëñ bi ba mën a delluwaat seeni activité fekkoon na jamono jooje yet woowoon nañ làbbe yi laaj leen mbirum sëñ bi lu ngeen ci xam ndax jamono joojee France dañ daan am ay jafe-jafe ci seen état nga xam ne bu ñu masaan am leen jaaxal làbbe yi lañuy ñuy woo di leen ko laaj ba leen ko làbbe yee xoolale ne leen jëmm jii ngeen indi fii daal li fekk tëggoowu leen ak moom lu ngeen tàggook jafe-jafe yii leen gaal loola nag tax ñu occasionné pour bañ mu rate ñu ne nañ ko yóbbu kon Sénégal ñëw fekk ko fa loole wax ko loole daal di koy embarqué teg ko ci gaal gu ndaw ndax pooru Brazzaville booba dafa amul woon solo waaye dañ koo teg nag ci gaal gu ndaw pour mu mën a jaar Matadi dem Brazzaville bu demee ñu teg ko ca gaal gu mag ga embarqué ko pour mu dem senegal ñu daal di koy jël teg ko ci gaal gi ci la binde bayit wii mu naan ansaani yamtidaat natbin xatadi jumlatama laqiitu naxwa matadi nee na keroog ba nga xamee ne dem naa ba romb matadi ci laa sant yàlla xam na sama coono yépp nag jeex na takk ci àddina ñu teg ko ci bato bi mu daal di wuti senegal bi mu ñëwee xam ngeen ne mi ngi agsi ci juróom benn fan ci baraxlu yamoo 11 novembre nga xam ne diggante boobu mu fi départ 21 septembre 1895 ba ni mu dellusee ci jamono jooju boo ko xaymaa mi ngi toll ci juróom benn weer wala juróom ñaari weer yu teg ñaar fukki fan ak juróom mooy téere bi mu génnee Sénégal ba ni mu dellusi waat fekkoon na it bi muy ñëw administration française bi nekkoon biir Sénégal bindoon magi Sénégal yi nga xam ne ay murid lañu ak mbokki Cheikh Ahmadou yi nga xam ne ay rakkam lañ ku ci mel ne borom gaawaan bind leen ay leetar ne leen Serigne Touba day ñëw suur tel ñoom ñëpp ñu ñëw ci waaxi musaasir yi Cheikh Ibra Fall ma nga ca woon ñoom ñépp ñu marché ñëw dajaloo fa ànd ak mbégte lool wuuteeg boobu yi nga xam ne ñu ngi ko ciy teg. te Cheikh Ibra di mbing rek di daw te naan yéen ko yóbbu waaye deful kenn dara yéen ko yóbbu deful leen dara ñu ànd ak muñ akuk dal kontaan lool nag ca dikk googee waaye ba ndikkee toog ab diir nag ca port ba mu mel na nag dañ leen na joxul benn information xanaa di dugg ak a génn ba seen xel doon jax-jaxi naan sëñ bi day yaakaar naa tubaab yi dañ lay nax waaye ñëwul ni tuut ki nga xam ne moo yore dossier bi ñëw rappel turu maam Cheikh Anta ba maam Cheikh Anta wu mun a ko marabu bi nee na nga fekk ko ci biir gaal gi ñu doora nag xam ne kon mbir mi dëgg la borom gaawaan bi mu ñëwee moo Serigne tubaa nekk nañ ci biir gaal gi ab diir waaye nee na fekk naa ko ci melokaan woo xam ne jeexaayu tukki gi ak coono bi jàpp na ko ñu waxtaan waxtaan lu yàgg mu wax borom gaawaan ne ko sama bagaas yii nag ma doon liggéey la rasulullah sallallahu alayhi bu génnul man duma génn moo may jëkk a génn xanaa kay bokk yi tubaab bi ko doon génnee ak bagaasam ne day fay lislaam ba mu bind xusóor yi xalat wal ahlu an yi tafaraxat li matxi lësi xanhu madihun qadiru ñu jaaxle lool kookee dem ba dellu siwaat ko bindoon ni leetar ne faatu na ba ne la marabu ne plus ba ñépp jaaxle ba boroom darul moxti yàlla dogal su wax ak suñ boroom wala mu wax ak Sëriñ Tuubaa ci ndimbalal yàlla ba am firnde ci ne sëñ bi génnul àddina tey ñu dem indiwaat ko sëñ bi mokkee leen ne leen yéen bagage yi jëkk a génn ba kookee nga xamoon ne mooy tubaab bi ñoo mujj di jàppale borom gaawaan bagaas yi muy génn kon mel na ne sëriñ tubaa am na ndam amati na ndam te ndam loolu moo jant bi àndali feek jant bi du fay xéewali sëriñ Tuubaa du fay bu mukk loola nag ba mu amee ba bagage yi génn sëriñ Touba ndeke la mbooloo mi taxaw ndeysaan bi mu ne tëll jëmmam ja tedd ja ja liggéeyal woon rasulullahi sallallahu taala alayhi bi nga xam ne moo waxoon ne lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu zunnatahu lgarra wa inni ahmadu ne tëll ndeysaan ak leer ga ak taar ba ak jom ja ak fidwa ne tël am ñu ko jot a gis ñooñ tàggoon nañu seen sago keroog bokk na ci ña fa nuyu Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina bokk na ci ña fa jox loxo nuyu ko ba mu yëkkati loxo bu tedd bi ca kaw wax ca kaw ne leen bu ëllëgee lépp lu ngeen gisate ci àddina lu mu rëy rëy loxo bu ndaw bii moo ko liggéey ba mu jeex tàkk door ñoo réserver àllaaxira kooku mu ngi yemoon ak la 11 novembre 1902 yemoo ak juróom-benn fan ci aw baraxlu ñu daal di koy jël daal di koy yóbbu ndar fekk Cheikh Ibra Fall dëkkam yi mu yoroon yépp fenn fu ne délégué na fa nit pour wax ne comme sëñ bi ñëw na suy déggee foofa nag bañ libéré ko ci muy dem ci biir réew mi. dëkk yi muy jaar yëpp day wàcc ci kër googu kër yooyu yëpp mu jël ko jox ko addi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kooku muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina bi sëñ bi ñëwee ba agsi nekk fa ba ci fukki fan yi ak juróom benn ci baraxlu la yónnee woolu maam Thierno mu wuy si ko foofu ndar maam Thierno bi mu ñëwee nu yoog Serigne Touba ñu waxtaan fa waxtaan wu yàgg la ko xamal ne ko boo demee na nga jël njaboot ga toxal leen dem Daaru Marnaan ndax xamoon na ne bu ñëwee tànkam duutu teguwaat biir Touba ndax lu mu jaayante woon nag suñu borom la ba bis boobee sax wax nañ ne moom la Cheikh du Fadal ñi ñuy fàttaliku joxoon ndigal waa Daarul Moxti ne di leen ko soppi muy màggalu borom daaru muy bis boobu mu gisee woon ak Serigne Touba ci fukki fan ak juróom-benn ci aw baraxlu ban demee ba baraxlu waa dee koor daal di dugg ñu daal di koy woo jox ko liberté provisoire ne ko dellul nag ci say bokk bis buñ la soxlawaatee jëlsi la mu daal di génn. ndeysaan ñëw juróomi fan ci koor gi sànnoo si kër sëriñ Sira mu baax ma nga xam ne sëriñ Touba tagg na ko ci wet gu nekk seeraloo na ko ci fànn bu nekk sëriñ Sira Lo booba yoonu murit moo ci ëppoon doole yàlla maye na ko ci wërsëg lool bariwaaniwul bariwaaniwul woon kum ko may bés bu ne wax nañ ne juróom benn nag dana ko rey ak genn gëléem akub gàtt diir bi koor gi tàmbalee ba noon yi mu jeexe keroog bi yàlla dogalee ñu gis weer wi wori ba ñu woree nag yàlla mi dara tawul Sëriñ Tubaa jóge fa ci ñetti fan yi kore jaar ci dëkk yooyu nga xam ne nag mooy dëkk yi mu romb ay durigaag ay njeng jawak dëkk yu bare mu déparé fa ñetti fan ci kore gi ba agsi nag ci bisu ñaar fukki fan ci kore gi ci dëkkam bi mu njëkk a sanc tudde ko Daaru Salaam dayale ko maam Cheikh Anta borom gaawan bi mu ñëwee maam Cheikh Anta def na lu raw li sëriñ Siré loo def ganale na ko juróom-ñeenti fan yi dale ci ñaar fukki fan yi ba ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent maam Cheikh ant luy teraa nga def na ko àggoon na sax ba bëggoon a jël nit tër rey ngir tere la ko Serigne Touba Cheikh ko ñëw ne ko Cheikh Anta lépp baax na béeg lool keroog it ca la wax ne nañ ko indil Cheikh Mamadou Bachir booba fekk na ma nga ndaam moom bi sëñ bi dem ci géej gi la gane jamono muy 1895 bi sëñ bi ñëw yàlla dogal mu ne nañ ko ko wool ci juróomi ñaar fukki fan ak juróom ci koré gi bañ dikkee fekk ci fekk ko ci ndam Cheikh Abdourahman di ko dal di ko tëralal ba àgg ci fi mu doon binde la xat radiyallahu anil muminina léegi bi mu àggee ci waawu kaw gi ci kutumbal bi rek ba koy bind rek ñu ne ko sëñ Tuubaa nee na nga ñëw wuy si ko te àndaale sëñ Basiiru ndax ba muy dem ci la gane jamono ñu tudde ko borom mbég mi muy Amadou Bachir bi mu ñëwee fekk mu toll ci la xat radiyallahu anil muminuna boobi nga xam ne loolu mu ngi dajeeg ne ko nag léegi am nga ngërëm ci aaya boobu loolu lay signifié fa muy dem bég la bi muy ñëw dañ koo gërëm mu daal di ñëw wuy si ko wax ak moom la muy wax ba yàlla dogal nag moom i tamit ci ni saxaaba yi doon jëfe jëfe na fa jëf ju ne mel ndax ñépp dañoo ñëw di nuyu si sëñ Tuubaa ndax namm gun ko namm waaye moom mu toog ndaam rek darul xalimal xabir nangu faa jóge ba boobu yi ko sëriñ Tuubaa woo ne ko na indaale Basiiru ñëwee mu nuyoo moom ne ko xanaa danga maa namul woon waa ah kay namoon naa lool mu ne ko lan moo tax ñëwoo nuyu ma mu ne ko yow kat ba ngay dem dang ne ma demal ndaam ba ma liggéeyi ba ñëw ba ma liggéeyi ba ñëw nga toog foofu loola moo doon ndigal li ndigal loolee nag ca nekk li fee goowaatoo ma duma fa mën a jógewaat di dem fen mu gërëm ko lool sant ko lool ne ko nag gërëm naa la lool yaa di koy digal na ko lii nga def nag mooy lii nga xam ne mooy li gën waaye boo delloo nga daal di toppatoo barab ba su may dem daru man naan kër maam Cerno danaa fa ñëw sëñ daam dem defar barab ba néeg ba sëriñ Tuubaa nekkoon mu dem toppatoo ko defar ko ba mu baax sëñ ba jóge fa ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca kore ba kër borom gaawaan ànd ak mbooloo ma gannaaw julli tàkkusaan bi timis daataan jot nag mu daal di ñëw daarul xalim al xabir bi ñëwee mu dalal ko ci néegam boobu bi julli timis jotee ñu daal di ànd dem ca jàkka ji julli ji dikkaat toog ci néeg bi mu daal di wax ne nañ ma indil sama gaal sangam ñu dem indi gaal mu ne leen du gii mu dellu indiwaat gaal mu ne leen du gii ñu indiwaat gam doon mu dikk ne walla gii la gii la daal ne waaw kay gii la moom ko waxee mu daal di ubbi gaal daal di wax ne kat ku tukki ba ñëw da ngay joxe sëriñ mbooloo mépp daal di jóg génn nii ba bàyyee ko fa moog sëñ Abdu Rahmaan ab turki dara jox ko génne sajaada jox ko génne kaamilub alxuraan jox ko génne kurus jox ko ngeen baal ma daal di génne ab der jox ko moom laa wax nag sajaada ab der daan na ko ku tukki ba ñëw dangay ngay joxe sëricë daan na ko sëricë bi xanaa dul na mu ne ko lool loola di pas-pas bu am solo bu Cheikh Abdourahman am ci yoonu murit ci féete gi féetale woon Serigne Touba ca daara ja ca alxuraan ba jàngal ñett génération ba noonu yi mu fi jógee liggéey na liggéey bu rëy kon mbokk yi xam naa dañuy taxawandi foofu insha allah ba ñëwaat ci beneen ponk bi nga xam ne nag fi la jógee foofu ndam dem dëru mar naan ca foofa la ñuy sóoboo nag dem gànnaar la mu fa def ci ay karaama ak la taxoon tubaab yi yóbbu ko fa lañ ca man suñ kem kattan dees na ko indi bam tolloog nii nu ko indi woon ci gabon ba dellu si waat Sénégal ba noonu ñu ko indee ci yeen Jolof ba nam fa jógewaat ñoom njeereem ba niñ ko indee jébbal ko boroomam insha allahu des na ci dikk yéen kon ñoo ngi leen di jox di dajee ci waxtaan woowu seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe Sëriñ Moustapha Massamba moo leen ko doon defal di ñaan dégg ak topp lu ci jub yàlla na ko yàlla boole lu ci dëng yàlla nañu ko yàlla jéggal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu